Música mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalala ci bi limametti.com di leen jaajëfal comme à chaque fois ci topp bi ngeen ñu topp comme à chaque fois limametti.com da leen di toppal actualité actualité bi nag gis ngeen ci li nga xam ni moom mooy rumeur boobu doon circuler di génn àdduna ki nga xam ni moom mooy Habib Diop ñu gën ko xam ci turu Baye Eli moom nag ay rumeur dañ doon circuler ni dafa génn àdduna waaye loolu daf dañoo gis ni loolu nekkul dëgg moom sax daal dinay génn daal di weddu loolu yépp waaye am na leneen lu ki nga xam ni moom moo def rumeur boobu noonu moom mooy Sanex Sanex nag ngeen xam nga xam ni moom mooy Sénégal mu nekk fi benn comédien bu lol mo waral dañu dem seeti ki nga xamni mom moy Sané di ndey mbil ji mu dal di ci indi li nga xamni mom moy ay léral ci mbir mom waaw euh, d'accord mangi ngi ngi nuyu wa limametti point di nuyu ñi internet yi sétane di len euh, balu ak ci koor gi. di ñaan yalla mu def jàmm yàlla musal ñu ci mbass mi am parce que c'est le plus important musul ci sunu delo ci wat ñep ci sen ay activités waaw man nag euh, li ma metti wala li ma jaaxal sax laa wax mooy euh, feebaru Baye Ely ñi ko ñëpp ñi ko ñëpp jotee laa ko jotee man sax dañ ma ko nettali parce que gisuma ko directement daal di ma koy wan ci portable ni ñu tiitree ni dafa génn àdduna yàlla na yéex yàlla na yéex euh, noonu laa ko jotee comme ni ko ñëpp jotee. su ma soxna daal di may wax ni ni ma wool sën comme que mook sën dañu jege de tele sorte que voilà parce que aw ma numéro ça fait six ans ou sept ans bàyyi éli gisante wuñu déggante wuñu euh, ma daal di woo sën ni ko waaw mama sën li ma dégg nag sën daal di ma ne dara amu ci dañuy wax rek maa ngi nii dem tëngee ci bàyyi éli te bu ma àggee dinaa la ko paas moo grand bu ñuy wax grand jaw tey doon théâtre daale ko te nekkoon États-Unis Eh, grand bi sax seen pass na mako ko wax ba waxtaan ak man ñu safonté biñu aggé teungé seen dal di may wo pass ma bay ili mom neex a neex la may wax neex neex sa waa kon waaye sa waa euh, pour sa massa massa ñu ñu safonté wax ma ñaanal ko fa lañ yam fa lañ yam à ma grande surprise le soir ñu envoyer ma ay audio audio sama portable par la par le biais de ma famille sama nit envoyé ma ay audio comme quoi Baye Ely di wax ak nit di ko wax ni saa neex mooy wër di wax ni damaa dee bon interview bi mën na bañ a gudd parce que je veux tout juste que rek li ma wax fépp laay wax bu fekkee Baye Ely parce que dafa am ay docteurs yu ma woo yu nekk États-Unis dafa am ay nit yu ma woo yu nekk fii ay professeur woo ma li ma teeyal parce que AVC aussi day def noonu nit mën na ko délire loo mën na ko kii yàllaahu yaxlam bu dee loolu jéggal naa ko bu dee da koo def ci propre gré it jéggal naa ko mais c'est juste que ñetti responsable ñetti yii la laaj papa dama lay interpeller directement comme ni ma waxee ñëpp laay waxee ak yow comme ni may waxee ci site yëpp laay waxee ak yow ñetti yi daf ko laaj. dafa laaj courage dafa laaj grand dafa laaj l'islam parce que jullit nga parce que xam naa ni nit ku diñ nga parce que xam naa ni am nga grandeur te xam naa ni lii doo ko yóbbu ci sunu borom te tey dafa garaaw gis nga bu affaire bi demee nii yàlla tere safaan am fu may sete ci àdduna du ma set parce que Sénégal la nekk. papa il faut nga taxaw leeral lii bu dee ci sa feebar la jéggal naa la ko bu dee loo def ci sa propre gré la jéggal naa la ko mais leeral ko parce que bu ko leeralul du ma jóg ci di ko ko fàttali. gis nga yére bii ma sol démb ba léegi moom laa sol si miwu ma ko vous voyez ko tout de suite sama jabar taxaw na fii di ma wax ni kay changer yére bi. fi ma tok ni dembu ba legi fi laa toog ci lal kon affaire bi metti na ma togn nañu ma sosal nañu ma fabriquer nañu ma mais rectifier ko papa rectifier ko parce que buñ ko rectifier wul bu sobe yalla duma ci di wax plateau tok tok wala fuma tok dina ko ko fatali lii rek la amon lumay ci wax dama yor njaboot ngeen comprendre ma parce que yu bëri awu na fi waxuma ci parce que du ma ci wax loolu sama digganteeg peuple bi la. parce que peuple bi da ngay théâtre ñu bëgg la nga dem def dem wax loo xam ni rafetul wala wax loo xam ni neexu leen ku nekk ak ni muy réagir sa diggante ak moom mënoo fi nekk naan da ngay tontu peuple bi parce que peuple c'est le peuple gannaaw yàlla ak yonent bi li nga doon ñoom yow ñoom ñoo tax nga doon ko mais là du sama digganteeg yàlla. suma diggante nit la ak nit bàyyi eli lii sama diggante ak moom la kon il faut man maa ci am lu ma leeral moom mu am ci lu mu leeral bu restee ci position am bàyyi naa ko yàlla bu revenir sur de meilleurs sentiments xamal nit ñi ni leen ni moom dafa juum alhamdulilah buñ ko tegee ci cadre bu feebar bi garaawul tamit ñoo xam ne nit ku feebar la mais bu nekkee ci propre grème parce que kamu waxal. nit ku yées la ka ko woo téléphone xam ni dafa feebar mu wax ak moom nit ku yées la ba mu jël affaire bi di ko dugal ay Sénégal di ko dugal ci site internet kooku kenn gënu ko bon mais ñooñu doo leen calculer dans la vie parce que ay nitu safara lañ ku yeef tit fitna rek nitu safara nga léegi nag kooku waxuma ay waxam. sama digganteeg Baye Eli am am am problème déedéet man awma benn artiste comédien wala benn artiste bu ma amal xaar ma yàlla man doxewuma foofu. meluma noonu man dof laa man man man gisoo sax man man sawaay yi nag théâtre Sénégal bi amatuma dara lu ma ciy prouver lu dul gunge sama jarbaat yi ci soogu dugg ak sama rakk yi lu ci waaye def def naa ko teg est que war naa fee nekk di xool ku ma bëgg ku ma bañ man doxewu ma noonu man xaw ma ku ma bëgg xaw ma ku ma bañ damay damay tëlëx tëlëxi di dem rek man ci ñëpp parce que du ci kenn ci ñoom mënoo fexe ba yàlla du ma jox li ma war a jox suñu borom heure bi may rey dina ma ko rey wërsëg bi may jox heure ba bu jotee dina ma ko jox par la force kon nekkuma fi di di xool ku ma bëgg ku ma bañ mais da di rek euh, yenn yi tamit raxas ci sa der baax na ci même si le fait même si même si tu le fais pas pour toi fais-le pour ta famille j'ai un enfant j'ai une femme j'ai dama am nit ñu ma bëgg dama am famille am ay mak. xam nga am ay rak yo xam vraiment xam nga loolu la j'ai maa ngi jéggalu ñëpp na ñëpp jéggal wax ju mënu gudd